bi ñu bi ñu président bi ñu bi ñu falee tabuñu teg ñu à la tête du projet lu ñu njëkk commencé mooy def mooy réunir suñu équipe yëpp en séminaire xool dëggantaan programme bi fi mu toll li dox ak li doxul bi ñu duggee nag ñëpp mu am ay changements yoo xam def nañ ko au niveau organisationnel déjà dañuy organiser liggéey bi ñun ak au niveau des DAC aussi loolu lañ njëkk def ba pare lancer ay programme am importance lii di incubation parce que comme ni nga ko cœur de métier wu Prodac incubation la moy am former les jeunes en en faire def leen ay entrepreneur agricole ci loolu lañ def job ay cohorte d'incubé à CFA à Kër Momar Sarr ak euh, ak ak Itato def ay réalisation ay réalisation tamit parce que incubé tamit suñu paré sen parcours incubation am na ñoo xam ne dañ leen di jappalé ci ay financement ñi delu ci seen gox am na ñoo xam ne donc dañ dañuy regrouper sous forme de GA e mën a liggéey au au sein des DAC ñoñu nak dañ leen defal ay aménagement am na loo xam def nañ ci ren à à à CFA Touba à Itato euh, ak ak ak ak Kër Momar Sarr lancé nañ tamit initiative bu am importance mooy PAPADAC parce que souveraineté alimentaire dafa bokk tamit vraiment ci suñu mission mooy appuyer producteurs yi au niveau des des des zones d'implantation de DAC ak fépp foo xam ne projet de DAC nous tax en tout cas créer wala maintenir plus de 25 000 25 000 emplois mu am programme bu mu programme bu am solo boo xam ne ay euh, ay résultats donc ci dynamique boobu lañ nek bëgg nañ tamit vraiment euh, comment euh, jeexal les DAC de la deuxième génération mooy DACu Biti kat DAC Bato. Boulel Dodji ak Fafacourou balaa deux mille vingt euh, allah ñu pare donc si dire tout simplement ñu ngi ci dynamique bu baax c' est vrai que programme yi jot na am ay jafe-jafe xam nga programme bu amee noonu importance programme bu amee nii euh, solo soo koy déroulé day am ay jafe-jafe bi fi mu toll nii da nga dépassé nañ vraiment phase yu métti yi te tey alhamdulilah ñu ngi ci dynamique bu baax ñu ngi ci dynamique d' incubation et de création d' emploi. Kër Sambakan Kane Sangalkam ak Nooto bu soobee yàlla nañ fa démarrer ay production 2024 déjà am na lu lu fa am parce que papa ci dans le cadre du PAPADAC accompagné nañ production yi nga xam ne ñu dëkk ci zone yooyu mais li infrastructure incha allah nañ ko fa réaliser ba nga xam ni dëkk yooyu nañ mën a fonctionner di accueillir ay incubi accueillir ay GIA incha allah am na tamit euh, beneen portefeuille de projet trois dëkk la mooy Nooto Tambacounda ak ak ak ak ak Matam nañ liggéey incha allah ci études yi ba pare rek lépp loo xam ne programme bu lu mel ni papa rek incha allah nañ ko ko déployer tamit ci zone yooyu bu soobee yàlla dire tout simplement ñu ngi ci dynamique bu baax autorité suñu jàppale rek je pense Prodac ci ci jëmee ci création d'emploi loolu nous permettre de nous mais bon avons une sensibilité ni sensibiliser autorité am nañ en cours d'année nous avons des ressources additionnelles nous nous permettre d'atteindre mën en 2024 Nous si des tamit nañ ak structures déjà structure état parce que bon structure état yi dañoo war en synergie a 3FPT muy DER Fonds FONGIP muy ANIDA il y a des conventions que nous avons préparées pour vraiment optimiser l'affaire euh, au niveau de au